li yàlla def a gën li nit def yàlla daal li mu def moo gën li nit def voilà li naan xew xew yi ayut waaye jamono bii ñu toll nii moom siècle bi ñu nekk nii moom ba siècle yu ñu jëm moom Jomaay ak ay xew voilà lii nag euh, lu yàlla def la nañ leen ko nangul dama gis ni maanaam fi ñu dem nit ñi dañuy génn tatagal leen tàccu leen jàppale leen vraiment lenn rek ngay njëkk a gis ci mbooloo mi mooy drapeau Sénégal bi nga xam ne mooy flotté voilà xam nga loolu yàgg nañ koy wax ñun dañoo bëgg Sénégal maanaam lépp lu ñu fiy indi rek Sénégal di ci gis boppam bu dee ay oto bis la lu mën a doon rek couleur Sénégal bi di ci génn di ci fes bu dee tali territoire yeeg yëpp rek maanaam lépp rek voilà Sénégal di ci gis boppam pas ay drapeau parté yu kenn xamut loolu dafa war a jeex ci Sénégal parce que loolu bokkul ci développement chaque jour yaa ngi wane sa bopp ne man maa fi nekk loolu loolu lay nuru daal waaye daal wax dëgg yàlla gis na ni daal ñii moom vraiment lii ñu indeegun ak lii ñuy doxalee nii moom dal na xel te sedd na xol voilà kon nag yaakaar naa ne Bassirou Diomaye ngi noonu li tax mu gën a tee sax mbir mi gën a tee neex mooy président boo xam ne nii bi nga toogee léegi yagul mais yaa ngi def loo xam ne vraiment nit ñëpp macha allah la ñuy wax xam nga tee saa nga nekk président doon ndaw dem ci yeneen réew yi nga xam ne nii eh, say dëkkandoo lañ vraiment nga dem fa wax dëgg yàlla teek ñoom wala seq jàmm waxtaan loolu nekk na loo xam ne nii li muy li muy li muy li muy indi macha allah parce que ku nekk xam ne ni day gën a rataxal ab diggante ndax xam nga dèjà Mauritanie ak Sénégal rek loolu lu baax la ci ñenn ñi nga xam dañuy dem ba ci géeju nii di ci am problème ak yooyu noonu xëy na loolu mën naa réglé wu ndax lu mel ni eh, président bi def. ayo ñu jógewaat foofu ñu ni fan mu ni Gambie voilà mu demati Gambie wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne ni vraiment loo am solo ndax xam nga Gambie moom suñuy dëkkandoo lañ dëkkandoo voilà ñoom moom vraiment suñuy dëkkandoo lañ kon nekk na li nga xam ne daal vraiment euh, dañuy wax ne kon euh, Bassirou Diomaye Faye li mu war a def daal mi ngi koy def euh, naam mu gis nañ fi ay président yoo xam ne nii voilà c'est parce que nag lii muy def nii am na ñoo xam dañuy wax ni voilà yi Macky defoon na ko voilà daanaka mën naa ne yoon wi nga xam ne fa la Macky Sall tegoon tànkam voilà fa teg tànkam am na ñu koy wax waaw loolu mën naa nekk xam nga Macky bi muy door a ñëw man ñi ma gisoon ci Macky ànd ak ñoom ñoo xam ne ñu amoon caractère am fulla am fayda am xam-xam voilà ñooñu la Macky àndaloon xëy na ñooñu nag biñ ko soree bi ñu soree Macky la Macky commencé am ay jafe-jafe xam nga ku ci mel ni ne Alioune Badara Cissé Ndaw wala Alioune Badara Ndaw xam ku ko xam xam ne borom xam-xam la woon ku jege woon Macky Sall la ku bari woon xam ku jege woon askan bi wala ak ñeneen ak ñeneen waaye bu gis na ban soree Macky rek la Macky commencé bi léegi nag Macky ak ñii bokkunu ñii yaakaar naa ni wax dëgg fa yàlla benn bu dul dara culture bi ak yar bi ak euh, seenu doxalin dana wuteeg. voilà Diomaye yaa ngi noonu ak euh, Ousmane Sonko ak euh, gouvernement am. Euh, Sénégalais yi nga xam ne ñoo jàpp ne wala comme euh, euh, Macky Sall li mu doon def ak fi mu mujje jàpp nañ ne wala ñii mën nañoo def loolu kon ñooñu dañoo néew ab xalaat néew gis-gis ñii yaakaar naa ni gis nga lépp loo xam ne ni rek ñu ngi koy wax ñu ngi koy def beneen bi ci des tamit moo di Sénégalais yi dañoo jàpp ni ñii moom voilà dañ leen di nax ak non naxuñu leen euh, li ñu war a defal Sénégal Sénégal euh, dina ci gis boppam bu baax a baax sénégal yi gis seen bopp bu baax a baax dèjà lii muy def nii rek wax dëgg yàlla ferte la euh, lu rafet la image bu rafet la image buy dem la image boo xam ne nii dootu fi voilà dootu fi dañ di des ndax xam nga. doon président wax dëgg yàlla di wër say dëkkandoo di nuyoo ñoom di saafonte ak ñoom loolu dafa nekk loo xam ne nii vraiment lu am solo la ci gisin daal voilà gis na ni nag wax dëgg yàlla euh, euh, euh, nit ñi moom saa su nekk dañuy wax di créer ay wax di créer tamit ay voilà yaa a gën a xam ay sos xam nga sénégalais yi moom wala ak tamit yàkkamti voilà na ñii bi ñu toogee wala ana lañ waxoon non loolu dafa teel voilà dafa teel am na xam nga étape par étape voilà dèjà bu dul dara sax xam nga liñ ñu dig rek dafa neex même buñ ci jotul sax neex na danañ ci jot waaye dama ko waxee noonu ñi nga xam ne nag voilà dañoo bëgg lu ñu wax voilà dañuy profité voilà di créer seeni affaire voilà lu ñu dugg ca lu ñu bëgg koo dem na fekk loolu wax dëgg yàlla euh, ak yàkkamti la ak tamit bëgg voilà euh, njëkk euh, nit ki ci mbaram loolu mënul ne kon daal da ngeen teey da ngeen dal tax xam ni kenn ku ci nekk boo amee ay sa projet jëmal nga wuti yi ay projet pour bokk ci ñuy développé Sénégal